Espagne te liggéey rek yóbbu leen woon fa waaye ba ñu demee nag ñu ñàkk fàtte sëriñ bi ñàkk fàtte li mu fi bàyyi muy xaside yi te di ko xalaat di ko saytu ba yàlla xiir leen ci ñuy dajaloo foofee di ko yëkkati di ko jàng di ko durus ba yàlla xiir leen ci ñu wut bis boo xam ne dañ fay dajaloo ñoom ñëpp ñu nekk Europe te yëngu ci loolu moo xam France la wala Espagne wala Allemagne wala Italie yàlla dogal ci at yële ñu taxawal guddi googu nga xam ne bu ñëwee dañuy daja fi benn barab wut wenn waxtu ci suba gi lu mel na huit ci suba ñuy wuutante ci am njàng di ko def par kuréel ba waxtu wa dellu sa ca ëllëg sa muy liggéey boo xam ne it ñu ngi ciy sàkku lu neex sëñ Tuubaa ñu ciy sàkku it loola neex ngir xam nañu ne sa yitte la sa bëgg-bëgg la waxtu wu ne nag ñoom ñii nga seen ci loolu la féete kenn ku nekk ci ñoom yaa nga ci soññ sa moroom ñu di ca góor góorlu seen kem kàttan di ko bàyyi xel bu baax waaye day def nag saa suñu ko defee ba noppi ba waxtu wi jot yàlla dogal li ëpp ci ñoom nekk fii ci réew mi ñu àndandoo nag wut bis bi ñuy siyaare Sëriñ Tuubaa moo tax kon tey yow nga fi nekkal Sëriñ Tuubaa ñu àndandoo tey ñëw di la siyaare di la jëbbal liggéey boobu wii di la ko delloowaat say loxo ba nga xam ne liggéeyu Sëriñ Tuubaa te yaa ko moom lu leen yitteel la nag ñuy sàkku nag nga ñaanal leen ci ñu leen yàlla xiire ci liggéeyub Sëriñ Tuubaa géejug Sëriñ Tuubaa gu fees googu yi nga ñaanal leen ci ba ñu gën caa sax gën caa góorgóorlu te luñ ci def ñu nangul leen ko lenn ci ñoom bari na ci ñoo xam ne sax xëy na amuñ mënuñoo ñëw waaye nag ñi ñëw a kës néew teewal nañ fi ñi nga xam ne ñoo jotu te mën a ñëw ñu lay ñaanal yow ci sa boppitam yàlla bàyyi la fi lu yàgg ànd ak wér sab liggéey itam yàlla sotal ko te musal ko daaw bi ñu ñëwee di siyaare nag dafa fekkoon ne bis ba jàlloon na ca bis dajale woon nañ fa bindoon nañ fa ab kaamil boo xam ne ca bis ba dañ ko bind di ko royee ci liggéey bi sëñ Tuubaa bu rëy boobu nga xam ne wax nañ ne ca njaareem mas naa am kaamil buñ tuddee woon kaamilu njànja nga xam ne ci bis bi la ñu sot xalima yi ci bis bi lañu jënd kayit gi ci bis bi lañu ko bind tomb ko suqi ko maas ko wutal ko jaafira defal ko ci ak gaal goo xam ne tey lañ ko liggéey jëndal ko xomb loo xam ne ca marché ba lañ ko jënde ca bis ba keroog boo ko sëñ bi téyee teg ko ci loxoom dafa wax ne xamoon naa ne saawaa ji di alxuraan fii laay mujj ak moom ngir fongum ko fonk ak liggéey gum ca liggéeyoon loolu defoon nañ ko doon nañ ko roy daaw ba andiloon nañ ci kaamil lu mel noonu waaye ren nag yàlla dafa dogal bis ba dafa jàllagul ndax ci le 7 décembre bii lañ ko jàpp war ko caa def waaye fas nañ yéene buñ ca àggee te itam daañu ko yeesalaat noonu ñu ko defe woon daaw incha allah kon nag bis boobu di ñëw itam nga ñaanal leen ci yàlla defal leen ci tawfeex ba mu agsi ci jàmm ñu defe ko nañ ko daan defe ci jàmm te mu rëy te rafet te ñu leen ko itam loolu Mbàkke teg nañ ko ci sa loxo yàlla nga leen ko nangul sëriñ Sam kàddu gaa nga noonu. mbooloo mi yëpp ñi nu àndal ak ñi fi teewal diaspora bi yëpp ba ci Maroc am na ñu fi teewal teewaay bi nag dara warul ko lul bis bi daa séddalikoo ñaari cër am xëy akum ngont sunum xëy mu di daayira Serigne Touba yi ne ci bitim réew kenn ku ne fa nga féete nga bokk ca di nag ñoom ca la ñuy def lépp ba matal ko buñ demee nag bu bëccëg xëy ma jeex na ñu tool gont ci suñuy tool tool bi nag mooy lii ñu féetale ko xasida yi ginnaaw bu alxuraan bu ñu defee alxuraan ba noppi ngont moomee nag moom lañ ñëw ngir siyaare si la di la ko jébbal la jiitu ca ngont ma itam mooy njàngum alxuraan ndax gën gaa néew ay bis gu nekk nu bokk jàng ñeenti kaamil yu mat ak li mu xasida bu takku la ëpp ci xasida yi itam dafa am xasida ñu bi ñu tànnaloon mu di ma fàttali bisri dañ ko cee boole ginnaaw bi it ñu wax ne sëriñ Amsatu Mbàkke moo waxoon ni dañ laa laajoon ni leen xasida goo bëgg ñu jàngaloo ci bisu France ba nga ni ig fi nii yooyu boole nañ ko ci ak yeneen xasida di la ci ñaanal ngir nga yàgg fi lool te wér te say mébét yëpp nga matal ko ci sago ah loolu mooy ngont mi ak nag lenn lu nu ma rek suñu addiyee bopp ñu boole ko ci ngont mi kon ngont moomu moo ngi tax a jóg tey indi ko fi di la ko jébbal ngir jëmmi sëriñ Tuubaa ginnaaw loolu itam wax ji dugg dañoo ànd ak suñu kilifa di sëñ maam Thierno Mbacke moom sëriñ Abbas mu Daaru Mufti mu jóge Espagne jiite waa Espagne yëpp itam boole ñun ñu ni àndal bisu xasida bi ni ko sëñ maam wax itam ci weer yi ci wi ñu gën lañ ko war a def waaye xat-xati jamono ji ak barab bu ñu amut moo tax ñu yóbbu ko ba décembre bii di ñëw mu juróom-ñaari fan ci weeru décembre bu ko seen borom dogalee kon nag lii mooy addiya yi nga xam ne ñu indi jàppee ko ci liggéey bi nga xam ne muy liggéeyal sëriñ bi kon te barke borom ñun ñëpp nan doguwaat fas yéene liggéey bii nga xam ne sëriñ bi yëkkati na ko ñu am dogu nekk ci ndax jamono bu nekk ñu ngi leen koy waxee fii ci kanam sëriñ bi te sëriñ tubaa rek doy na ci seere mooy nañu xam ne liggéeyub sëriñ tubaa bii du jàngi xasida dong nanu ko xamal suñu bopp ba la ñuy jóge fi ñu xam ne am na lu mu naal wax ne liggéey boobu bu mu laal suuf loolu nanu xam ne ñun dong yi ñoo ko yëkkati nanu ko nanu ko fas fii rawatina dong yi nga xam ne ñoo nekk ak ñoom ta nekk ca Espagne kenn ku ci ne ci ñëw ak ñi ñëwut nan am pas-pasub ndax Serigne tubaa def na fa ay xéewal kenn ku ci ne ci ñun leer na la leeru yàlla lii la Serigne Touba jox yow dong ëpp na li nga jox Serigne bi li nu dajee ci ambulo yi di ko jox sëriñ bi ku ci ne sëriñ Tuubaa def na ci yow lu ëpp loolu yi loolu nag du pas-pas sunu maam ya it àndewuñu ko woon ak sëriñ bi xam ne bu nu ko ànd ak sëriñ bi du ngor kon nanu góorgóorluwaat te te daggaat suñuy pas-pas te xam ne bu nu jugee fii na nanu waat ci liggéeyu sëriñ Tuubaa bii te xam ne moom rek moo na li ñuy jariñ jamono bu nekkit ñu xam ne dara lañ tekki du doon borom xam-xam yaa ngi fi li lay wax hadisu Bilal bëriwut te moo daa noddal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi biñ ko yóbbi Mauritanie gee xam ne ñun ñii dañoo am feebaru complexe moo tax ñu yóbbu ko fa bëgg mu jë gëm ña fa nekk waaye naar ya gënoon a dëgër bopp mun waa daymaan ak ansaar ñoo wëlbati ko topp sëriñ bi kon nanu xam ne sëriñ Tuubaa mii am na lu yàlla def ci moom loolee muy def ci moom nanu ko raas li ni cey mën a dimbale nag mooy lii liggéeyal sëriñ Tuubaa moom doo ay wax lenn nañ ci góor góorgóorlu rek nekk ci ñun ñi fi dajee ñëppit ak ñuy bëgg ñëw ci ñëwuñu nan am pas-pasu yéene waa leen fii ñu taxaw fii ñu nekk bu ñu ko yéenee rek sëriñ bi moom xam na li ci xol yi waaye nañu ko daggaat te góorgóorlu bu nu génnee fii rek xam ne danoo war a tàmbalee liggéey suñ tubaab bi ba laal suuf mukk ñu ngi jéggulu bu baax a baax nag jërë ngeen jëf li safinatan bi kullil janna min daari li safinatan min daari minan yaasal minna